jofuma assemblée nationale parce que danaan day am crise institutionnelle ndax président bi bu ne dama bëgg troisième mandat euh, président assemblée nationale bi ne ko waroo am troisième mandat. la deuxième personnalité de l'État. deuxième personnalité de l' ko crise institutionnelle am na loolu xamoon naa ko voilà xamoon naa ko. kon yow yaa ngi doon xaar mu bañ la jox assemblée. parce que affaire bi dafa mel ni dala bett. non dara dara bettu ma ci. ah oui <laughs> non ah 17 minutes dama nga ne ci 17 minutes laay xam ne. Euh, duma ma nekk kon yow amoon nga ay écho que du nekk yow. mais amul solo parce y a un solo mooy euh, nga non c'est ah, politique la ñu ay politiciens la ñu ah dañuy xam nañuy analyser euh, ci diggante 31 août euh, ba 12 septembre sama position ci troisième mandat changé Vous bu changé woon ma doon président assemblée nationale gis naa ci président plusieurs fois toog nañu lu plusieurs fois. mos ngeen ci waxtaan personnellement yéen ñaar. bien sûr mais man sama position mais musuma wax nak day def wala def mais la ko wax moy man li ma japp ne warul def troisième mandat. boko ka daan wax nan la ka daan gisee kilifa day moom dangay wax rek nga wax. après ci wala mu wax la ci dara lu. la rek que li def xam na la bonne décision. <laughs> la bonne décision ci man def mandat. c'est mais ci télé yi non war nañoo def comme Allemagne. Mm. Allemagne présidente ba mandats pourquoi pas Sénégal tubaab yee ñu bëgg imposer li ak kon euh, ba tey may président assemblée nationale waaye euh, bu ma xoolee sama bopp kon ci seetu bi ma xàmmee sama bopp parce que maa ngi commencé militer depuis l'âge de 14 ans euh, voilà ni la ko sama sœur yi waxee injustice musuma ko mën a nangu moo tax ma amoon attirance ci parti yi nga xam ne seen lutte moo doon la lutte contre les inégalités sociales à l'époque nag parti voilà bu gauche yi fi nekkoon ak mm. ni mel nous euh, avons gënoon a attiré après nag yàlla def ci sama wàllu liggéey sax Nations Unies may liggéey ci santé de la reproduction des femmes yooyu yëpp ay la mm. scolarisation des filles ak yu le département euh, des droits humains et du genre au fond des Nations Unies pour la mm. population donc yooyu yëpp mooy mooy man may façonné mm-hmm. voilà bëgg poste rek du tax nga renoncé. yooyu doo ko mm lu nga ni président Macky Sall wadjalul ëllëgam do nga ci gis ay signaux wala. oui oui oui non wadjal wadjaluko lan mo koy wane. mais d'abord do tok ba ñu né dans 5 mois la élection nga naan defuma troisième mandat ci digënté bi ay manifestations am fi gouvernement bi ci bokkom né amna 16 seize morts xam nga yooyu yëpp euh, mënoon naa na a am mënoon naa bañ a am te euh, ensuite bon candidat bi mu yor dafa melni ken kenn xamul daal nu mu demee. <laughs> Ah, moom dafa mel ni sawaru ji moom ci boppam parce que quand même ce candidat dang koy baye xana banque muy annoncé ay ay budget nga jàppale ko di wax ci mom ak yu mel mais sawaragu ci de xëy na déedéet gisuma ko. da nga japp ne dako ko malgré. mais bien sûr que dako ko malgré moom parce que man li ma jàpp mooy président Macky Sall benn candidat la bon laaj ma kan la kan la mooy Macky Sall. <laughs> c'est nous koko don candidat mais après pression bi ñew mu wara baye avec le nombre de morts qu'il y avait et cetera donc mu jël ce qu'il avait sous la main <laughs> on va dire euh, noonu noonu laa ko gisee donc il faut ñuy préparer suñu président yi ci ne alhamdulilah rabil alamina troisième mandat kenn du ko waxat ci mim réew c'est fini mim réew réewu Sénégal moom kenn du ci waxati troisième mandat kon wala euh, suñu président yi bu ñu duggee nañu xam ne am nañu ab mais ci diggante bi nañu indi ay garde fou moo tax ma doon wax affaire famille parce que man am na chance su fekkee 10 ans du président Macky Sall bi tambali tàmbali allah ñun dañu ne dañuy xeex corruption dañuy xeex guerre dañuy indi ñi gëna a xarañ ci sénégalais yi ak ñu ni mel. de bonnes intentions. ah oui yéene woon na def ah, euh, loolu am lu mu ci def aussi. man duma né mu mukk deful dara non ko ma ko waxee sax ken duma jël au sérieux amna na lu ma ci def mais bilan immatériel bi foo fay problème bi ci walu pratique bi ci walu Euh, voilà ni ñu gérer réew mi ak ñi ñuy nommer kooku aussi problème la euh, ak yenn profil yi nga xam ne wax dëgg yàlla seen place euh, du woon fa ñu ne ak yenn pratiques yi loolu il faut mu am ay li tubaab tuddee garde-fou maanaam nu ñuy téye daal seeni seen doole ba nu mën a jéggi dayo loolu it am na ci solo bañ rek yow bokk président nga jox nañ la wala xaalis bu bari boo xam ne bi voilà na muy mujjee ñëpp xam nañu ko wala yow mii daal am nga capacité politique waaye sa xam-xam bariwul euh, waaye danañ la jox ministère loolu rek lañ fi gis loolu avancé wul réew yu mel ni suñu biir